fi représenté fi maire ndax dafa am ay partenaires yoo xam ne dañoo ñëw muy 3CAP santé euh, ànd ak ay waa UAL ànd ak yeneen partenaires ñëw pour jàppale population bi euh, ci nu ñu war a taxawee ngir xeex sibru bi léegi nag dafa ñëw bëgg loolu population bi def ci seen loxo mairie bi nag def ci loxoom aussi bu ko defee mu doon loo xam ne lii population bi dañ koy approprier wu loolu nag. Euh, pour ñu def ko moo tax ñu tëggoon ñaari bis yi ñu war cee bokk waxtaan su ko defee nag maire bi def ci loxoom partenaires yi def ci seen loxo bu ko defee ñu jëm ci population bi nag sensibiliser leen wax leen li nga xam ne lii moom mooy favoriser palu palu bi ku ne xam na ne bu fekkente ne taw taw am na ndaa kii euh, ba taataay yi commencé yaatu euh, koñ yi moo am ay sën yu ndaw saa su nekk kii dañuy am possibilité di nen di toj donc loolu kenn xam na ne moom mooy source bu mag bi donc loolu la ñu war a taxaw ñun waa Touba seet nu ñu koy euh, xeexe ba buñ ci jógee li ñuy wax ne dañoo bëgg ren zéro palu nga xam ne kenn du tawat jàngoroy palu buñ ci jógee ci plan bi nga xam ne moom la ñu war a def muy plan de riposte wala plan boo xam ne bi sax day prévenir ba sax riposte duñ ko soxla donc loolu yaakaar naa ne euh, lu am solo la xanaa bu ñu si jógee rek nag jëm ci population bi ñoom it ñu déggal ni ñi xam li ñu leen wax xam ne loolu seen intérêt la ndax palikot ku ne xam na ne moom ay jeexitalam ci yaram la ay jeexitalam ci poos la ay jeexitalam ci liggéey la ay jeexitalam dafa yaatu donc xeex ko moom mooy euh, xeex li nga xam ne day gàllankoor développement. mbébét bi day mooy lu ñu mën a waxtaane bu ñu jógee si session de plaidoyer yi ñuy def fii nan la commune Touba. mën a yokk jéego si biir koppar si biir yokk ay nit si biir yokk ay équipement ngir accompagner population yi ngir si biiru wàññoo ko fi jeex fi taal si digg si dëkk bi di Touba. léegi bu ñu xoolee li programme national de lutte contre le paludisme wax si plan stratégique am dafa ne pour que fii ak 2030 si biiru jeex si biir réewum Sénégal il faut que ñëpp a jàpp ci te xalaat nañ jàpp bi. représentation population yi mooy maire yi mooy collectivité yi te tey boo xoolee si liy doxal euh, bérébu fayukaay yi ñu tuddee commité de développement sanitaire CDS ñu ngi suy dox ay jéego mais lu ñu mën a xool ensemble bu ñu jógee fii nan lañ mën a def bu fekkee ñoom daan leen dugal fukk ñu xool ñu mën a dugalee ñaar fukk la ñett fukk ba lépp luy si biiru jeex biir diwaanu Touba loolu daal mooy bébétu jataay bi. Aboubakri Ngaïdé, représentant l'Union des associations des élus locaux. Euh, d'abord, il faudra rappeler que l'Union des associations des élus locaux regroupe l'ensemble des communes et des conseils départementaux. Et à partir de là, l'UAL a signé une convention avec 3 euh, Cap Santé euh, au début du mois de juin. Ensuite, nous avons organisé une rencontre pour qu'il y ait plus d'engagement des collectivités territoriales pour le financement de la santé dans les collectivités, pour l'intérêt des populations. C'est suite à cela une rencontre, une mission a été euh, est organisée pour venir à Touba, pour faire le plaidoyer, pour faire le lobbying de, la collectivité euh, territoriale pour euh, le financement, pour accroître le financement, les fonds qu'ils mettent sur la santé. C'est dans ce cadre que nous sommes ici avec euh, trois Cap Santé et notre structure qui l'accompagne. Non, vous savez que euh, au niveau de, de, du budget classique des collectivités territoriales, euh, peut-être que la part de, de, la santé, il y a une partie qui est, est dédiée à la santé. Et nous savons aussi que la santé est une compétence transférée et que les moyens venant de l'autorité de l'État ne sont pas assez euh, suffisants, ainsi que les moyens aussi que détiennent les collectivités territoriales. Donc nous faisons le plaidoyer au niveau de, nos, euh, de l'association pour que les collectivités territoriales puissent injecter beaucoup plus de moyens euh, pour la santé. Parce que sans la santé, je pense qu'il n'y aurait pas de collectivités territoriales. Donc, euh, notre rôle, c'est de faire le plaidoyer, faire la formation, la capacitation des acteurs locaux et les élus pour que le financement soit pérenne. J'ai parlé de, la convention qui a été signée entre les collectivités territoriales et les trois Cap Santé. Mais aussi, il ne faudra pas oublier qu'il y a des collectivités territoriales qui se sont déjà engagées. Et je pense que euh, la commune de Touba pourrait s'engager pour accroître le financement tous ce qui, les, les moyens qu'ils détiennent pour accroître le financement de la popula euh, de, de, de, pour la santé. Donc euh, c'est le moyen que l'UAL utilise euh, avec les engagements. Et ensuite, euh, parce que vous savez que si, même si on s'engage, on doit être capacité. Comment mobiliser les fonds Comment attribuer ces fonds pour que euh, pour qu'ils puissent, qu puissent revenir aux populations dans le domaine sanitaire